leen ci biir géew bi alala oh Thierno Moussa nañ la daan la ilaha illallah Sokër takk na ko Sokër takk na ko Thierno Moussa Sokër ñaari mbër nga jàppoo waaye kenn loxoom de ay la ay la la daan na ñaari mariyaa yaa nga jàppoo waaye kenn loxoom de